Bonjour. Bonjour. Ça va? Good morning, Philly. Vous allez bien? Euh, fine. Ah, mhm. parce que sinon. Uh -huh. après ce sera des fautes en anglais euh, très nul en anglais très très nul. Ah, d'apprendre un tout petit peu dès que j'ai le temps c'est vrai qu'il y a des écoles il y a des il y a même des personnes qui se déplacent à domicile pour apprendre l'anglais. absolument c'est vrai mais pourquoi vous. ah après le good morning. you pay me good money I will do. ah bon yes. vous payez vous aussi. doo ko def sax entre collègues. consultancy fee. doo ko def entre collègues. Ah, no way no way. non Pape Amadou vous aussi. bu leen ma rusloo. don't want to waste my time. time is money. oui je sais, je sais que vous n'avez pas le temps mais au moins 15 minutes vous pouvez me le consacrer. sans bañ ma fayee ko time is money bon xëy na awa bu ñëwee di nga ko may moom gratuitement jàngal ko awa I will charge her. voilà alors tey moom euh, on va proposer aux téléspectateurs euh, une autre recette c'est les spaghettis aux crevettes et à la sauce pesto pesto moom mosoon nañ ko fi defar spaghetti tout le monde connaît mais tey assemblage boobu euh, fan la jógee ak tey préparation bi naka la balaa ñu dem fekki awa. waaw euh, bala ñuy dugg ci waxtaan bi rek euh, di sargal waa Yëmbal yi donc euh, j'ai passé un bon week-end là-bas mhm. vraiment Ndiobène Ndiirène Ndiayène mhm. ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu mhm. voilà alors donc tey jii ñu leen di proposer menu bu bees spaghetti boo xam ne dafay ànd crevette ak sauce pesto sauce pesto boo ko déggee Euh, ñun dañu bare ngun-ngun fii au Sénégal mais ci ataay lañ koy def wala ci ay euh, nu ñu koy waxati ci euh, mbor mbor wante léegi dañu war a di ko defar ay sauce ndax dafa baax ci système cardiovasculaire loo xam ne ne dafa baax ci xol baax ci digestion ah foog naa li ñuy def rek mooy di ko utiliser mm. alors léegi ñu jël crevette ndax awa moom caaroy géej la dëkk te caaroy géej crevette rek la alors crevette nag euh, léeg-léeg nga jël yàpp jën crevette foog naa booy euh, varier sa alimentation foog naa di nga am wér-gu-yaram alors léegi bu ngi ko booleeg spaghetti bi nag foog naa ni mën nga ko reere mën nga ko añe muy loo xam ne daal lu baax la ci yaram. lu baax ci yaram comme ni mu ko waxee ngun-ngun crevette ak euh, spaghetti loolu la ñu nar a boole pour mu defaral ñu suñu spaghetti aux crevettes et à la sauce pesto mais comme ni ñu ko xamee bis bu nekk aw ñu dem marché lu am solo la ñu dem fekki awa reportage doo ko dalal fii ci plateau. yow yaa may may crevette may ma crevette doo may crevette. day jaay baax bu mu yomb nga ñëw ñu may la. ñaata. moment bi 2500 la. <laughs> looy ree léegi léegi wax ma looy ree. ah dama am loo njëkkoon a wax kon da ngay wax wàqe. dégg naa la kon. xam naa wax wàqat ngay def yow. peeseel ma ci liibar. te nga ci la nga njëkkoon a wax dégg nga. bàyyi di wax waxee. waaw indi gaawal. tànnal ma bu dijj nag laa bëgg. waaw gis nga. ay ca. yéen comme da ngay wax waxee xamatuma ci yow dara dara dara. sama xarit bu mën a tooñ bi anamu. spaghetti laa bëgg. bu xool ndaw bi. bu mag bi lu muy jaar. ah. téeméer téeméer. kooku tooñ rek la mën dégg bu ñëwee nga wax ko sama xarit. maa ngi laa bëgg. ñaata li ñaata la. man li mu bees la. yow jógal bi ku ma jàpp dënd bi. man ngaa yor dënd bi. waaw kay merci jërëjëf. ni koy waxee sax tey dama am benn nuyoo ma bëggoon nuyoo sax. how do you. du mba ah how do you. how do you feel. naka. how do you feel. ah Awa ah. is speaking English now. ok how do you feel kon kay jeex na la nga doon wax mu ngi noonu. bëgg aay de ah. and what else can you say. nii <laughs> bul yaa bul bul bul buggi bul polémique bul xóotal bul xóotal bu ma la waxee how do you rek nee ma fine. du noonu ah, waaw nee ma fine rek. that's that's a that's a big try. waxal fine. fine. jeex na ah. ne ko fine kon. fine. Ah. ni sama crevette. waaw waaw Pape Amadou naka weekend bi. ah weekend bi di ah, sargal waa yëmbal rek comme ni nga ko waxee. ah waaw romb naa la nag nga baal ma mais. waaw aw ma woon jotu waa Caaroy géej. waaw baax na garaaw. waa mm-hmm. yëmbal am na ku ma yóbbante ci yow boo paree ma wax la ko. waaw. bu bàyyi la dindi. jàmm rek jàmm rek. waaw jàmm rek la ñuy am. dindi ñu crevette bi ci sachet bi. waaw bu ko defee ñu mën ko xool xam nag yan xeetu crevette. nga jënd jamono ji nag bëri na ci marché bi. waaw macha allah tur Euh, duñu wax tuuru na mais daal xaw na bari tuuti. Mhm. waa ci marché bi moom tey danga ñu gàtte de. gis nga ma tey moom gàmbaas nga ñu indi. yu mag waaw mag na de. Mhm. waaw gis na. man nag xam nga marché bi ñëpp samay xarit lañ moom. tey la ngay njëg njaween yi di kontaan de. waaw ñoom bu ñu gisee. ñoom nag nee na njaween nag na ñu mën nay nay njaween yi nag. si pax tan Fatou jaw Diaw ak Oumy Diaw nee na ñu nga bàyyi di leen tooñ te doo leen yónnee plaque hmm. ma kon ko ñu leen war a yónnee ndax ba dolli ci bosam hmm. nee tamit fili li rek day sot may leen waa fili ndax genn wàllam gi sekk la moo tax muy sot <laughs> ah, waaw waaw dañ koy def euh, histoire sekkal ah, rek waaw ma mu nee nag nga kiyal leen ci benn sukub yónnee leen bon xam naa dañuy bàyyi préparation bi tàmbali bu ko defee bu jeex bu jeexee ñu jottali aw mu yóbbul leen ma yóbbul njaween yi waaw li ñuy def rek mooy euh, taal suñu waaw pour tàmbali ci. kii nag dañuy jël ndox bu tàng. waaw. def ci. ko yomb na moom. waaw nee nañu am waaw 10 ndax bu xonqee rek. voilà boo tegee sa ndox bu tàng rek. bu la neexee sa teg ndox bu tàng bi jël rek def ci noonu tuuti. waaw jël yi nga xam ni moom moo gën a dijj. boole ci. xanaa ci biir yu euh, te ñuy moytu rek di ci lekk lu bare ndax. Euh, ñi nga xam ne dañu am euh, problème cholestérol mm. c'est dû en partie à la consommation abusive de crevettes